siraata alladina anamta alayhim gayril maxduubi alayhim wala daalliin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu mboolem mbokki jullit yëpp di nuyu mboolem waa lislaam jëpp di nuyu mboolem tarixatul muridiyya bépp di jiital ci nuyoo bi sëriñ Mouhamadul Muntaxa ayyadahu llah wa nasarahu di nuyu nag njaboot jagleel nag ab nuyoo njabootu maam Seex Anta gépp di fab nuyoo bi di ko teg ci sëñ loxol sëñ Abo mi nga xam ne moo leen yebal moom mi nga xam ne mooy taxawu màggal Daaru Salaam gi ñi ñu ñu di ñu di leen delloo ci moom am nuyoo bu gën a rafet di di ko jotti loo it mu jotal ñu ko ci njabootu maam Seex gépp rek li ngeen di ñëw nag di ko fi dox si mooy euh, diggante maam Seex ak sëriñ bi rek waxtu wi nag dafa xat lool ci man waaye ñu tënk ci li ñu mën a tënk rek ndax maam Seex moom ku yomba xamle la ndax digganteem ak sëriñ bi xas la ci amoon am ci it tawféexi boppam ndax fam tàmbalee ci digganteem ak moom mi ngi tàmbalee ci sëñ bi moo daale woon mbiram njëkk muy agsi ndax sëñ Mbàkke Anta mi mbokkal ndey ku tandu la woon moom ma xam ne yi nekk pataar la faatu ñu denc ko ca njaañ bi àllarba ba ca ca ku tandu la woon te am baatin lool danaa def fu mu dajeeg sëñ bi ne ko ñaari jant lañ xëj duñ bokk feq yow mii yaay yaay ki nar a feq loolu la sëñ Mbàkke Anta daa wax sëñ bi sëñ Mbàkke Anta moomee nag moom fi nopp loo loolu sëñ Sohaybu laa ko toxale ba mu noppaloo nag seex sëñ Mbàkke Anta daal di eh, maam si Anta soxna Anta maam Anta Ndiaye di ko liñ liñ baaxoo di ko métti lool ak a jooy lu yàgg ndax lim xam ci ki sëñ Mbàkke sëñ bi ñëw ba ci moom mu ne ko danaa la defal danaa la defal ab boo xam ne dana tax lii ngay jooy nga fàtte ko danaa la defal comme danaa la indil koo xam ne dana mel ni kii sëñ bi wala ko del te boobu yàgg na ña ngi ci waaw moom moom moom Maamor indi sëñ dafa yàggaat lool waaw ndax moom boobu mooy kii door a dem rek sëñ wàkkee door a dem léegi nag maam Cheikh maam Anta Ndiaye tontuwut bég na ci li ko sëñ wax rek waaye wax na ci moom ne boo jàpp ne ne loolu mënut nekk <laughs> nee na ku mel ne sëñ wàkki anta mi daal waaw ah, mënta nekk sëñ bi te sëñ bi moom lu mu wax rek dana ko def hmm. guraam du sànkar mukk léegi nag bi nga xamee ne si dem na ba maam Seex Anta toll ci ñu ñëw Mbàkke Bawol maanaam boobee mba bi sëñ bi tàmbali woote ci Mbàkke Kajoor moom ñu ñëw fi ko fekk waaye nag bi suñ ñëwee Mbàkke Bawol gii nag la ko doon tërbiye di ko toppaloo ci fas yi fu mu jëm mu ànd ak moom mu di ko jàppaloo geenu genn fas bi di fas yi daw mu topp ci <laughs> fu mu jëm <laughs> noonu loolu la ko doon liggéeyloo lay mu sol mu jiitu boo lay ne amatut xam nga lay moom boo jiitoo waaw mu daal leer li bëgg mu summi mbubbam daal di mu yor dal leen lool a ah, boo koy ndax ndax danaa agsi fi mu seexee moo tax nga ngi ci nga xamee ne boobu at yi nii mu nekk ca loola ba am bis boo xam ne sax daa ànd ak sëñ bi di daw ba mu yàgg as soxna woo ko nekkut mu dem gisee moom mu ne ko waaw ah, kii ni ngeen demee ci bokk nga di ko defal lii sëñ bi ne ko kooku waaw na ne am na ko doon taxaw di wax yow lu mu doon wax mu ne la ma wax di jëpp ma ci dara xam ne xam naa ne xam nga ko waaye lam doon wax de bu jëmee fe soow man maa ngi jëm fenk man xam naa xam naa xam naa li may wut sëñ bi ne ko ah, lam ci nangu woon dara rek fii laay tàkkali ko yow daal di daal di mu wéy ak moom ci sëñ bi ba sëñ bi ñëw Daaru Salaam nag Daaru Salaam sëñ bi nee na Mbàkke lu yàgg te am njaboot gi ñu ne ñu ne Mbàkke waaw ah, man toxaguñ toxaguñ waaw ñenn ñi de moo tax seen taarix di jaxasoo hmm. léegi mu mu wéy moom nag dem foofa ginnaaw bi nag la sëñ bi eh, ànd ak moom ba am ba am fukki at ak juróom-ñaar bi mu am fukki juróom-ñaar la ko seexal fekke nag maam maam Cheikh Rafaal it moom daanaka wax sëñ bi lu bari eh, sëñ bi sa bokk yi seexal ci kenn ku mel ne maam Cheikh Anta mii ndax ndax damaa bëgg eh, seen seen bokk yi ñee leen ba ñëw <laughs> sa bo sa bokk yi ah daa sëñ bi lay wax nag damaa bëgg sa bokk yi ñee war seexale ku mel ne seexante mi ñoom dañ ko dañ ko ñee ba ñëw <laughs> eh, eh, ndeysaan ak bëgg sëñ bi loolu it bëgg sëñ bi rek bëgg ñëpp jariñ ci mu daal mu daal ni mu daal ni ñëw nag sëñ bi sëñ bi ñëwee Daaru Salaam ba am fukki at juróom-ñaar nag foofu la ko seexale seexal gi ci li ci xam nit ñi dañ ko waxee nu waaye sëñ bi moom du seexal naan demal fabang diw ma boole la nga fabal diw dalay ñaanale nga seex moom mooy xawaat bi gën a wér waaw dox ba am ko ci li ma li ma dégg man xam nga nit ñëw neen lañ ko waxe waaw man <laughs> daa daa dox ba am ba am juróom-ñeent fukki juróom-ñeent fekk sëñ bi Tuubaa loolu laa waaye nag maanaam ñu naan sëñ bi daa wàññi ci daara ji ci li ma dégg man ci li ma gëstu man waaw ba dëpp wut ak loolu waaw waaw sëñ bi ñu rek tàllal ma ñaanal la nga boo génnee rek bala ngaa bala ngaa àgg sa kër ah, ah, ah, waaw topp garab ba mu wee mu seexal ko nag mu daal di tàmbali nag am barke dara te dara li lim yéene li mu yéene rek mu daal koy man ginnaaw bum mu jugee Darou ba dem Touba la ko sor may dëkk ba waaw waaye waaye daal di koy may noonu waaw Cheikh Aliou amaan nañu ab diggante ah, amaan na ah, ndax maam Cheikh Aliou bi ko sëñ bi wàcce ko booleel <laughs> ne ko yóbbul ma ko ba ndar mooy li ma leen di wax ndar nga ma xamul kenn mu ne ko ko ba foofa nga waaw wàcceel ma ko fa génn ci moom la ko boole moo dem daal di ànd ak moom ba ca ba ba yéeg pom ba wàcce ko fa seex wala fa la tàmbali seex kooka kooka xam nga du boole kenn kenn <laughs> ndar boo nga xam ne mu kenn nga xam ne dana ko wàcceel maam seex wala daa wàcce rek eh, añ jot mu bëgg a yalwaan fenn déedéet du fi ko yàlla di seexare boo ko maam seexante yóbbu daa wàcc pom bi rek am fu mu bëgg a yalwaan ñun fekk ndek koo ku wéra dee fa koo xam ne ña ngi koy xaru mu ñëw ñu ne ko ay dongub daara bi kii mu ne ah man naa ko ñaanal barke sëriñ bi fekk wooy moom jàpp nañ ne day faatu daanaka mu ñaan rek mu ne ñokkit ñëpp daal tàmbali waaye kii moom ndekki kii nii ne kii moom kenn xamul lu mu doon kuy laxasaayu kii daal moo ñëw rek daal di daanaka daal dekkal nit nag ah mu jeex tàmbali kooke noonu lay lijjantee mbir kooke kenn xamul lu mu doon ah, daar hmm. maam Cheikh Fall mooy Daaru Salaam la wàcce moo tax fa la suñu wàccee mooy waaw ah, fa la ah, nag euh, maam Cheikh Anta nag bi demee ba Cheikh nii maa ngi del si wax ju njëkk ji nag hmm. ba am doole nag ba mel noo xam ne kii la léegi nag eh, ñi sëñ bi du fàtte dara de moom dee ba sëñ bi ñëw eh, avant ko njëkk ci sax ci bi mu laataa dem ci géej gi mu am doole lool ba li mu bëgg lépp man ko bi sëñ bi ñibbisee ci demee ci géej gi ci la ko yebal ci li ngay laaj ni ci la koy eh, ci la yebal suñ mëdloo dagana rek demal wal moomam Seex Anta bi mu ñëwee booba fekkut mu am danti sax boo danti la ñuy demee waaye daan tëb sëñ Balla Coro ñoom la jël sëñ Balla Coro sëñ Cheikh Coro benn boobu moom la jël tukkee ko ndax boo sëriñ si kenn amu ci dante bi ndax bi muy am dante dëgg dëgg mooy bi muy rek hmm. waaw muy ginnaaw sëñ bi waaye boo ci la tukki wuy ji sëñ bi nag fekk ko gabon am ci xaas lool nag ba mu àggee gabon it lal bi ngeen dégg ñu naan lal bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam foofu la ko sëñ bi joxe te bi mu ñëwee sëñ bi nee na ko seex de am nga taw feex ndax xam nga fii mu daa dafa sori lool fi ma fekk ko waaw bi ngay jub bi nga duggee dëkk bi rek sa alayhi wasallam bi ngay jub fii barab bi ma nee rek moo ma xamal ne agsi nga lal bi ci la toogoon lal booyeen la ko may lal booyeen nag moom lañ dencaale ak maam Anta Ndiaye bi mu fekk ah, xam nga taw feex la ah, waaw ma ne nag taw feex la xam nga loolu lu ko yàlla defal la léegi nag la ca topp mooy bi mu demee ba am doole nag laa leen doog a ba dégg nga waaw bindoon yu bari yu bari ci ci géej gi mm-hmm. fara ko jox ak leetar yu bari biñ demee demee ba ñibbisi nag ba am doo ba doole ji bari maam Anta Ndiaye suñu saa yoo moom loolu suñu saa yoo laa ko dérivé ci laa xam ne maam Anta Ndiaye nekk njaareem ji sax fekkee na lu bari mu ñëw njaareem nag sëñ bi di ko leel ganaar fab ganaar nii di ko leel ko am mu ne ko Mbàkke la nga la ma doon nattale bi wan nga ma ko ba teg sa bët <laughs> leer na ma bu yàgg nga ma ko wan sax léegi nag li ma bëgg mooy damaa bëgg a fekk sama sëriñ ba keroog la mu jëgi sëriñ bi léegi nag li nga ma doon wan lépp ni ma danaa la defal loolu ni mu boobu mu jaaxal ma lool léegi lépp lépp leer na ci man ba doyal na léegi nag leen leen nag laa bëgg ah, fekki fe waaw sëriñ bi waaw ah, maa keroog sëñ bi sëñ saa yu neen sëñ bi da ko doon leel nii ganaar waawante ñaay woo nag mag la woo fan mooy li ma leen naan sëñ bi uh, baatam du uh, doo waaw mu mu ci liggéey mu daal am xaas jooju ginnaaw bi it maam si anta càqami la ne bi sëñ bi sëñ bi ci géej gi càqami foofu fa waaw mujjoon na daal saam raat ba kenn nekkatu fa sëñ bi ne bu ñëwee njéeréem boobu nag mu ne ko faaw nga sëñ seex bala nga maa xam ne ngaa sëñ ca Daaru Salaam si si si waaw am na am na la ko maam Cheikh Anta tontu am na la ko sëñ waaye loolu ko ci rajo <laughs> maam maam yéemu ci ne ne ko ah man de jàpp naa ne fii nii Mbàkke xam naa la ma li nga ma won <laughs> mu won ko ne ko bala nga maa xamaat dëgg sax da ngaa def li ma la wax moo tax bi muy sëñ lu mel ne xare la xare ndax mbooloo mu bari waaw waaw xam nga moo tax mu yaakaar ne daal di daal sëñ bi mëni si ko weesu sëñ bi nga ne ko bala maa xam nag da nga foofee ma la joxoon da ngay dem sëjtaat ko lañ ci waxante nag maanaam la la ko sëñ bi tànt ba bañ xam ne sëñ sëñ bi du nit du nit loolu nag xam nga du ma ko wax ci rajo waaw léegi nag kon noonu laa xam ci bi sëñ bi ñëwee nag ba ci mujj gi moom la sant ci boori 1926 ne ko téer yi mu mool ko mu yóbbu ko Égypte xaside yi njëkk a mool yëpp ñu yaaxal nga ndax moo wan sëñ bi ne ko diggoon ma la dama ne moom la jox boobu la ko jox ne maam si Anta ko wan ne ko mën nañ koy def noo xam ne du farta téer bu ne dana doon mbooloo waaw mu soog a dem nag jox ko ko mu yóbbu waaw moo leer waaw moom dalaa def lu mu gis rek lu yéeme indi sëñ bi ne gànnaar it na boo xam ne dafa dégg ñeen sëñ bi di jëfandikoo dara xam na ko it waaye bu gànnaar ji daa rawoon nga xam day fan du mu dem yónnee France Paris ñu utal ko bong bong yi dàq ci <laughs> bong bong yi ci boobu mu indi sëñ lii de moom ginnaaw doo jëfandikoo <laughs> faa <laughs> daal ciy def nii mu ko waaw da nga du nit de waaye ñun ñi nit di soxla waaw da ko xaw ma ah, Mbàkke da nga dul nit ah, yow nii nit ni man dañu fi ne ñeewantal képp tax mu wut lu lii wut ci xeeti bong bong yoo xam ne kenn xaw noonu tal te ci neex booba mag ñoom fekkoon daal ne eh, ku mel ne suñu affaire alaaj bàyyi mu doon ñu ñëpp faral leen fekk seen la ko doon joxe <laughs> léegi ah, hmm. waaw bàyyi mu alaaj mu léegi nag bi mu nekkee ci loolu taw feex jooju mu amoon ci sëñ bi moo waral nag yàlla may ko euh, xaas joo ne ni ko sëñ Abdou Khadir daa waxe rek nee na amoon na xaas ci sëñ bi joo ne fu mu jubee sëñ bi rek sëñ bi day ree moom sëñ gaa ndax bég ci moom ak ak man man a man a man a man a man a mën a ubbi waxtaanam maanaam ba nga xam bu nartoon fekk mën a indi jamaal ji hmm. waaw ba nga ne daana jamaal ji dana ñëw bu baax a baax a baax a baax yàlla may loolu yàlla may na ko amoon na cërit ci njëkk njëkk muy njëkk njëkk njëkk ñu bari di xam ci sëñ bi la ko ci gën a dimbali nag ba tey waajuram woowu maam si am ndax li ma leen di ci net li Cheikh sëñ Mbacke Anta moom waxuma dara daa xewagut waaye bi ma bi sëñ bi ñibbisi bi sëñ bi maamara sëndi li waaj a wàcc bi ñuy wax te maam di ko dégg loola moom boobu moom maa dañee kumpaam xam nga dañ na ci moom dañ na waaw xam ne li mu xam ci moom ku muy ku boppam kooku lu ñuy laajati ci moom dara kon moo tax mu ne ko bi sëñ bi ma kii ñi bi bi bi Mamour Anta Sall yi làqoo rek mu ne ko bu la kenn njëkk ci ki daal di waaw waaw daal di daal di daal di ñëw nag ñëw nag daal di taqoog moom nangu ko tërbiwu it bu baax a baax a baax yàlla defal ko ci taw feex nag mm, booba lu mu am jox ko maamante ñaay yàlla jox ko mu wërsëg lool mooy lu mu lu lu lu sëñ bi wax wax ne soxla na waa nañ ko rek bu ko bu ko seex yéegee maam seexante yéegee rek daal daal gaaw lijjanti ko waaw noonu noonu la yoon yëngu boo nag la ko sëñ war lool loo xam ne ci maxtu mi ma ko maam maam seexante def ne man sama mbir yéwoon na ba na fi ndax sëñ bi li ma warlool ci nag woo ngay wax sëñ ko bindal dara warlul ko ko ci àdduna ak àlaaxira nag mu def ko ci maxtu mi waaw sëñ bi moom loo ne xam nag loo ne loo ne eh, maanaam eh, arajulul munasib fil makaanil munasib xam waaw kam ci yónni ka nga xam ne bu ko ci yónnee dana fees ndab dana fees eh, barab ba fu ne xam na ko ci kooku rek la ci yónni noonu la mépp mbiram ndax yàlla da ko xamal lépp man loo ko lépp ci ci ndimbalul lu ko yàlla ndimbalee moom sëñ bi moo tax loolu yooyu yëpp loo lépp lu sëñ bi defal boppam rek doone wër wërtoon a def lii faw nga ci gis ay nattaay ijaabiya lay jur non waaye doo ci lépp lu bàyyi ko ci moom wala lépp lu lu mu xalaatal boppam ba tër ko na doo dem ba mu yàgg nga gis ci natiiji salbiya waaw loolu ko yàlla may ñoom bi dem ci géej gi ke ñoom ba bàyyee maam si maam maam Cerno njaboot gi ñoom it la leen war ci ci taxawaay bi ñoom ñooy ñoo ñoo àndoon ñoom ñëpp di di ko def nag di ko def ba ku ne yéeg sëñ bi mi ngi waay rek waaye sori wuñu ñëpp it gëmee ko noonu di ko jëfin lu war rek ñu dem yit ko maam Cerno ba kër gi dara taxawu ci njaboot gi dara ak tumuranke mus fi am waaw te booba tubaab yi xeex bu métti la ñuy def ko ndax mm, tubaab naka jekk ni mu baaxoo mooy lu mu jàpp ne bu bëggee sànq nit maanaam bu bu jàppee ne sànq na ko ba noppi comme gisaan nga mel ne dangaa bëgg a yëkkati lool rek ñu mere la ñu mere la ñu bëgg dal ci kaw dee ségu gi moom ba sëñ bi laataa dem ci géej gi la ko waxoon ne ko bis booy dem boobee mu ne Mbàkke Kajoor te ba mu seetee maam as Kamara ba mu ci jógee rek la ne maam Seex lii am na ci lam yoroon ci la maam as am na lu mu may maam Cerno am ci loo xam ne maam Seex Anta la ko may ne ko yow bis booy dajeeg noon na nga fab lii yóbbuloo ko te boobu sëñ baa ngi Mbàkke Kajoor. sëñ moom da bëggoon sëñ ko bëggoon rek. da ko bëggoon. nee na nee na at mi mu gënee àdduna mm-hmm. mbooloo la ko tuddee moom la ko sëñ Gaawaan tuddee eh, Abdou Khadre Diop mu ca Touba mm-hmm. ca ca ca bokk sëñ Abdou Khadre nee na bi ma gënee àdduna rek mbooloo la ma tuddee ci at mi ngir cofeel gu mu am ci man waaye moom it nag mu cofeel ah, lii ma leen ci nett bari na joxoon ci mu la mu la ko déggee waaw dama ne ah, ah, ba tey Eh, ak ak wilaaya maam seere na ko ba tey waaw ah, moo ko seere waaw Seex ah, Anta loolu bokkut <laughs> moom yombalul loolu ngan ngan gi moom bi sëñ bi ñibbisi bi bi ne ci géej gi naka jekk dara booba moom mi ngi way ci xasida yi foo gis mu ne ilaa daari salaam maa ngi ñaan yàlla muy delloo mu daari mm-hmm. mu xasida yi géej gi bari na ci lool bi mu demee bay waaj a ñëw mu ubbiwaatu kaamil ne naa la sixaar yem ci wallaahu yad'u ilaa daari salaam mu daal di ñëw nag wàcce ndar di dox jëm si fii ba ba agsi eh, ci ci yoon bi soog a yónnee ci maam Cheikh ne ko foofu la foofu ci yow laa jëm si daal yabal sëñ Omar Gueye mu yanu bagaas yi ne ko na ëcc neel maam Cheikh yanul gaal yi mu daal mu daal di waaw ah, am na fa ay bis yoo xam ne yoo xam ne yoo xam ne la tàmbalee ca la gën a tuuti bët bu set bët bu set xeet wu xeet wu am rek maam Seex da koy defar ba kenn xam ba ba ba kenn ba du xam lim ba waaw ba doy rek ah, <laughs> ñi mag ñi dañ koy wax fukki fukki nag ak juróom fukki bëy ak juróom ak fukki nanga waaye da da maanaam loolu lañ ci mënoon xam rek. waaw waaye daal day rey ba ba du gis. ba ca mujj ga nag mu soog ne damay rey nit <laughs> ndax ganalee ko sëñ bi muy laay kooku mu laay kamara la tudd mu ne bu dem bari ba tër ko ñuy wax ko sëñ mu ne ko ëpp naa def ëpp naa def <laughs> moo ko damay sant bi bi bi loolu amul nag laay kamara yi lool mu daal di fam laay may ko maam Mor wakullaha min wa antum bi xeyrin wasalaamu aleykum wa rahmatullah naka daaru salaami rabbi wa tuuba liyakun rabbi fi ma sauduni